moom Xaban Dieng la tudd alias Gabou Xaban Dieng alias Gabou booy boo ko ay dix-huit ans la war a am de daa pare parce que am mbir mi démb la am démb ci diggante timis bi ah ñoom ñaar booy bi ah, Cheikh am maama la muy bëre Cheikh am maama maama la buy bëre booy bi fa lay dem ndax moom maama ay xarit nañ yàgg na ñoom ñaar mais xam naa Cheikh bi nga mais ko war ay Cheikh am la xam naa dañoo jot si moom rek boobu ba mu koy rey sax booy Lamine la ci bëgg sëñ Adama Maama Lamine la sol boppam mu a te yàlla moom ba pare pour moom ba pare dem ba loolu xewee sama yaay mag la semaine bii la ci këy dem génn léegi ba mu koy yëngatu guddi rek ah, ma gis koon ma woo yaay mi ma xam yaay bu ñëwee da ngay ma ne seen côté bi kii di ñëw nii xale la dee ba pare kii yaa am la dooñu ko koy wax dara ma nan dem ba suba xam nga ñoom ba déggul ñu ñëw ma ànd ak ñu tëdd ci fii ba su tëdd ba ma génnee dem ma ñëwaatee yaa am li ma may woo téléphone naan ma maa doon pexe labu xam nga lu xew nag mais après loolu lañ bëgg a def rek pare na moom pour nee na te fu ñu yaakaar nañ fa def ñu reyaloo pare ba la ko jëm ci put booy woo ci rëbb ñoom ñu nëpp nëppal ñu jëfe seen combat bi mais moom mu rey booy man ma koy nëpp nëppal waa sëriñ kat booy sama jarbal la magam ñoo bokk ndey ak bàyyi mu waxaw nag ñu jigéen naan ko dem dem leen neex moom moo wax na sax moom wax xale bi la waa kër gi sax yëguñu ko woon mais moom warul woote wax di ko wax ay jigéen man mi koy nëbb jigéen ñi ma koy wax jigéen ñi ndax woote mu woote daf ñoo métti ñoo ñoo raay lu pare ñuy doy ci di woote wax te yor jabar yor doom nekk ci dëkk bi léegi ñun dañ leen bàyyi ñoom mu def liggéey ñoom dafa liggéeyam ñu def liggéey loolu la soxla barke Serigne Touba Mbacke billaahi wallaahi ñoom def liggéeyam rek lañ soxla loolu la Serigne Touba Mbacke loolu lañ ci am di ko jox chaque jour mais ngelaw ñu ci wetam ñu def leen liggéey dégg naa ci am na ko léegi pële sirab waaw léegi léegi sirab ko ëndi moom asan la tudd Cheikh Maama Lamine la dinaa ko sëri moom Maama Lamine buy bëri